salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi ziar ñu ngi ziar ñëpp Kayz Fof la activiste sénégalais maa ngi leen di nuyu sama gaay maa ngi leen di nuyu bu baax donc message bu may jàllale tey dafa nekk message bu ama am solo boo xam ne Euh, mën ngeen ko fexe ba sénégalais yëpp jot ko c'est très très important maa ngi leen di nuyu toujours ci suñu franc parler bi rek di wax loo xam ne moom la ñu gëm di wax ci intérêt sénégalais yi di nekk ci loo xamante ni moom mooy libérer sénégalais ñun ci loolu lañ nekk matin midi ak soir parce que suñu peuple bi ñu ngi souffrir te ñun souffrance boobu lañ bëgg mu jeex voilà léegi li ma leen bëgg a wax nag mooy yéen fexe fekkee ngeen révolution bi bu mu commencé damay indiwaat xel yi rek ma wax leen lan moo tax révolution bi réussir mu nekk loo xam ne bett na ñëpp bett na Macky Sall bett na ñëpp ñu wax ci parce que révolution bi bu muy jóg benn affaire moo am amul kenn ku ko jiite déglu leen ma de benn piège bu bees la ñu nekk di tendre dama leen di expliquer révolution bi kenn mënutoon ne nit yi toog leen ñu toog kenn mënutoon ne nit yi génn leen ñu génn parce que nit yi ñoo doon génnal seen bopp nit yi ñoo doon defal seen bopp lu leen neex amul kenn ku man fan laa nekk di directé sax amul kenn koo xam ne moom jiite woon na révolution bi est-ce fi may waxee déglu leen bu baax aar li ñu bokk am na fi gis nañ ko ñoo lànk ñoo bañ am na fi gis nañ ko ñun suñu révolution bi ñuy mën nii samedi bi dinañ leen bàyyi ngeen am prétexte génnee nit ñi mais samedi bu passé dimanche génnee leen seen bopp lundi génneel leen seen bopp mardi génneel leen seen bopp di génneel leen seen bopp mouvement yi dañuy jaay suñu xeex comme ñu ko jaayee si aar lu ñu bokkoon nuñ ko jaayee ci ñoo lank ñoo bañ waaye Y'en a bu ñu ñëwee ne dañuy organiser lu ñu leen wax gis ngeen ko te zéro résultat la joxe jour bu Y'en a woote ne dañuy def manifestation fii laa toog def live woote ne sénégalais yi nañu lu ñu def bu leen dem ne dañoo yeewu rek jàpp leen ñoom ñëpp ñu ne affaire bi capoté na dégg ngeen li ma leen di wax mouvement bi bu amee ñu ko jiite rek Macky Sall may nañ ko fu muy exercer influence am pour tas révolution bi loolu ñu xam révolution xam nañ li may wax xeex bi ni bu ñu mayee Macky Sall mu am foo xamante ni fopp révolution bi yépp ci loolu lay dépendre rek bu jàppee tas loolu wala jàpp ñoo ñëpp dugal leen prison révolution bi day tas révolution kenn du ko peuple bi mo koy parce que do mën a ken, kenn mënoo peuple bi donc déglu len ma gaay organiser samedi baax dina nek prétexte pour ñu génnee nit ñi waye yéen révolution bi momo len ko lundi premier jour ko len fi deuxième jour ko len fi troisième jour ko len fi ba dernière manifestation bu am boobu ngeen woté pour nit ñi ñew donc yenn révolution bi yenn momo len ko créer woo ko créer woo ko peuple bi mo jógal bopom donc ñun duñu ay naafeq duñu ay fenkat kenn duñu manipuler ci révolution bi dañoo sonn dañoo toog 72 heures nelawuñu di xeexal Sénégal 72 heures nelawuma ñuy xeexal Sénégal gaay yi ci ñëpp di def live vidéo gaay di jot fépp peuple bi di génnal boppam. révolution bi noonu la demee moo tax Macky Sall affaire bi surprendre ko moo tax Macky Sall affaire bi dafa jékki-jékki rek surprendre ko parce qu'il ne s'attendait pas à ça révolution bi noonu lañ koy continuer noonu lañ koy continuer samedi ñoom bu ñu leen génnee. dem len parce que nek na prétexte bo xam mom moy génné nit ñi waye dimanche bo len di génn bu len taggo kenn lu leer la len di expliquer dimanche bo len di génn bu len xaar kenn woote pour ngeen génn dimanche lundi bo len di génn bu len xaar kenn woote lundi pour ngeen génn manifester. révolution bi ñun dañ koy récupérer ci suñu loxo kenn duñu fi jaay xelu mag wala lan nga jaay révolution bi ñu teg ay millions ci sa loxo nga faté fàttewaat askan bi ñun xeexuñu pour lolu de ay liberté de la presse ay libérer les détenus politiques ñun faalé wuñu lolu ñun du lolu moy lu ñuy xeex. ñun génné fi Macky Sall ci suñu réew ñun loolu mooy suñu point boo xam ne moom moo war a nekk premier point boo xam ne dañ koy inscrit ci xeex bi dàq Macky Sall mu génn suñu réew loolu amul fenn fuñ ko bind ci seen charte ñun dañoo bëgg Macky Sall abal ñu suñu réew pousser demander la démission exiger la démission de Macky Sall loolu benn mouvement bu ko bindul rek yow représenté woo ñu loolu foog mu leer benn mouvement bu amul mouvement bu bind ni demander la démission de Macky Sall exiger la démission de Macky Sall mouvement boobu ñu représenté wuñu est-ce que leer na est-ce que wax ji leer na ñun dafa am ay principe yu ñuy xeex te kenn du ñu nax nax nañ ñu aar li ñu bokk nax nañ ñu lool nank ñoo bañ waaye duñu ñu ñëw nax di ay M2D du nax ci loolu encore aar lu ñu bokk lu mu jur ñoo lank ñoo bañ lu mu jur M2D lan lay ñoo jur la même chose que ñoo ñu échec bu ñu échec donc jël leen vidéo bi ngeen partagé ko Sénégalais yi révolution bi ñun ñoo koy mënal suñu bopp comme ça duñu Macky du am ñan lay corrompre révolution bu amé ñu ñu mëna corrompre rek bu ñu nekkul ay nit yu dëggu dëgg dëgg dëgg dañuy jaay révolution waaye peuple bi nga xamanteni mom moy mooy bopam kan ngay corrompre fofu peuple bo xamanteni dañuy gaay dañuy woote ci réseaux sociaux yi ñëpp génn ci mbedd mi waaye ana ki ngay arrêté fofu ana kan nga mëna japp fofu foofu ne ko yow yaa woote révolution bi ñun ñu ngi ci diaspora daf ñoo mëna japp mënul dara ci ñun mënul dara ci ñun ñun ñu ngi ci diaspora bi di woote Tunkara mu ngi woote fële kay Fof mu ngi woote fii ñeneen ñu ngi woote fële ana ñu ma mën ana ñu mu mun a korom ñun dañoo faale xaalisu Macky Sall ñun Macky Sall moo ñuy dundal ñun dañoo xiif donc révolution bu amee ñoo xamante ni am nañu influence ci ñooñu pour exercer ko ci ñooñu pour révolution capoter révolution dey capoter lu tax ñu réussir ba fii nii c'est parce que révolution bi kenn jiitewu ko dama bëgg wax ji leer rek kenn mënul ne révolution man maa taxoon sénégalais yi génn kenn mënu ko wax sénégalais yi ñoo génnal seen bopp parce que dañoo ay am yëg-yëg ne tey dinañ génn suba dinañ génn ginnaaw suba dinañ génn beneen jour bu ci toppaat dañuy génn noonu la war a continuer Macky sàll na démissionné donc M2D bisimilah baax na ñoo ngeen pour jàppale xeex bi waaye xeex bi moomoo leen ko xeex bi kenn moomu ko xeex bi buñ ko uttalee bàyyi rek xeex bi day échoué xeex bi buñ ko uttalee bàyyi révolution bi buñ ko uttalee bàyyi rek day échoué day échoué révolution bu amee ñu ñu mën a jàpp pour mu arrêter rek jàpp une révolution boobu de continuer lu leer laa leen di expliquer ñun ay révolutionnaires. on n'est pas né de la dernière pluie Comprenez-vous donc si leen di samedi prétexte pour ngeen génn génn leen dimanche nañu génn lundi nañu génnal suñu mardi nañu génnal suñu bopp nañ continuer comme nous, ñu doon def yeneen jours à partir de samedi lay commence. samedi nañ leen may nous ñu lancer ñu samedi baax na dimanche nous ñoom ñoo ñu ne leen lundi du ñom ñoo ni génné mardi du ñom ñoo ñu wara à partir de samedi affaire yi day reprendre comme nuñ ko doon gérer ñun ñoo koy gérer suñu bopp. amuñu benn négociation ak Macky Sall autour d'une table Macky Sall na génn suñu dëkk il ne va pas tuer plus de 16 sénégalais 17 sénégalais ñu ne dañuy toog autour d'une table de négociation pour exiger ay points yoo xam ne Macky Sall moom la ñu war a satisfairal bu lay ku lay satisfairal ay points day fekk nga reconnaître ko comme président assassin kuy rey askanom kuy rey peuplem lan la ñuy toog ci table kooku ne lii mooy suñu doléance kon révolution amatul kon révolution amatul ay manifestation la ñuy def pour réparer ay pour pour pour exiger ay point ñun exiger wuñu point ñun bu ñu doon xeex ba léegi déggoo leen benn yoon nit toog ci caméra ni ñu ñun lii la ñuy exiger lii la ñuy exiger lii la ñuy exiger musul am ci suñu révolution fan yii yëpp passé musoo leen dégg kenn ku taxaw caméra ne lii mooy point de revendication ñun amuñu point de revendication dañoo bëgg Macky Sall génn suñu réew. xanaa loolu leron na ci manifestation yi nan ngeen di pas way ngeen di bàyyi ñu leen di manipuler encore ci le mouvement bo xamne mom moy yorat xex bi parce que bu yoré xex bi day am ay points yo xamne ci yoy lay ñëw di discuter ñun discuter wuñu point ak Macky Sall Macky Sall na genn suñu rew moy le seul point ñun benn point lañu Moi am moy Macky Sall genn suñu rew abal ñu à part loolu amuñu benen point donc samedi à partir de samedi nous reprendrons. gis ngeen ñu ngi dugg biir kër yi di rey nit ñi gis ngeen démb vidéo yu circulé xam nga man démb lii moom ma metti woon ba ma génn ne leen ñun suñu xeex dañ koy continuer par A ou par B ñu ngi dugg biir kër yi di tiire gars yi di leen rey seen biir kër yi yéen a ngi gis parce que ñun dañoo nekkoon ci position de force ñu reculer moom muy gën a foncer suñu kaw ñoom ñëpp dañoo tiitoon dem laqatu ji ci village ñoo ñoo ñëw léegi di dalaat suñu kaw. ñi nga xamante ni dañ leen traumatiser ba ñu génn Dakar abal ñu Dakar ñoom ñoo ñëwaat tey di ñu jàpp di ñu tëj di ñu dóor di ñu mais ça veut dire que ñun on est en train d'échouer il faut ouvrir les yeux ñi daw Dakar ñu génn Dakar ñun ñoo ñëwaat léegi jëlaat commande yi di ñu toroxal léegi encore c'est parce qu'on a échoué donc échec boobu noonu du échec pause la di observer gis nañ ni Macky Sall du nit samedi M2D boobu noonu bu wootee génn leen dimanche ñu génnal suñu bopp lundi ñu génnal suñu bopp mardi ñu génnal suñu bopp kan lay jàpp kan moo woote manifestation peuple bee ko woote kan moo ko woote kenn wootewu ko du kaay soof du keneen kenn woote ko peuple bi moo génnal ma boppam dimanche peuple bi moo génnal boppam lundi parce que xam ngeen si lan la ñuy yóbbu tamit ma expliqué leen ay noo manifestation bi autorisé wuñu ko ñun dañoo demande ay autorisation bu ñu doon génn fan yi yëpp di dem raagi ji est-ce que on a demandé l'autorisation après MDD bi ci loolu lañ leen di yóbbu ay non manifestation bi accepté wuñu ko préfet bi may ñu pour ñu manifester finalement dañ koy bay affaire bi ñu étouffé ko étouffé ko étouffé ko ba mu dé ñun dañoo doon demander manifestation autorisation Macky Sall pour manifester dañ ko doon demander ñun. est-ce que ñun dañoo doon demander fan yi ñu doon génn yépp dañoo doon demander ay autorisation pour ñu génn dama leen poser benn question donc gis ngeen principe yaa ngi commencé changer ay manifestation autorisée ngeen di dégg ay maintient la manifestation donc ça veut dire que ay préfet ñu ngi ciy ànd après ay préfet yu war a bañ ay préfet yu koy interdire tas ñun demain sama gars yi nañu récupérer suñu pouvoir bi ngir yàlla ñu ngi perdre suñu révolution bi ñu ngi perdre suñu révolution bi te du dëgg du yoon du dëgg du yoon à partir de samedi na ñëpp génn dimanche na ñëpp génn lundi na ñëpp génn mardi ni ñëpp génn mercredi ñu def ko comme nuñ ko doon defee

ñoom ñëpp seen kër lañu doon lijjante est-ce que du ñu yegg suba kër est-ce que du ñu yegg ci sama kër léegi ci ñooñu la ñuy dem di demander ay autorisation de manifester ci ñooñu lañuy delluwaat tey ñëw ne leen waa ñun peuple bi nekkaat nañu ay xar on veut une autorisation de manifester ñun loolu la ñuy defaat ci foofu fa la ñuy mujjee fa la ñuy mujjee ci xeex bi ah sama gars yi bi leen seen bët yi xippi leen seen bët yi samedi may nañ leen ko dimanche ñun may ñu leen ko lundi may ñu leen ko suñu révolution moomoo leen ko ba di di ci nar a décider kañ lay am ak kan la dul am kan moo fi doon kan moo fi doon mën a décider révolution bi ban jour lay am ak ban jour la dul am. peuple bi moo doon jogal boppam man mii di wax sax mënuma woon ne gars yi génn la toog leen tey wala suba toog leen tey waaye bës bu loolu amee rek Macky Sall foofu lay jaar fay affaire bi bu ay nit mën a jóg ne tey da ngeen di génn suba doo leen génn Macky Sall fa lay jaar pour fay affaire lu leer laa leen di expliquer wax naa leen li ma leen di wax nag à vous d'être vigilant à vous de comprendre fi may waxee génnuma pour tas dama dis échec ar luñu bok ma gis échec ñoo lank ñoo bañ ma gis ni ñom personne ñu doon gérer ar luñu bok bokk doon gérer ñoo lank ñoo bañ même personne yoy ñoo nek di gérer M2D té yoy yëpp dafa échec amul dara luñu réussir ci yoy non révolution bi lu mu joxé amul ben mouvement yu ñu collecte wala collectif yu ñu créer non bu bu ko mëna jox bu ko mës joxé ci résultat Sénégal dañu waxanté dëgg rek dañu wax dëgg té Yalla tax rek kon gis ngeen ni on a quelque chose boo xam ne te meilleure meilleure organisation ko lépp lu fi existé woon donc buñ ñu delloo delloowaat ci loo xam ne loolu moo fi échecoon depuis longtemps ñu bëgg ñu ci delloowaat ñun dañuy génn samedi jox leen cër boobu noonu pour coono bi ngeen daj yépp waaye dimanche bu ñuy génn ñu leen tàggoo est-ce que comprendre ngeen lundi bu ñuy génn duñu leen tàggoo parce que yéen taxoo leen ñun ñun ñuy génn taxoo leen population bi di génn. du sen woote mo doon depuis premier troisième jour du sen ken xamu existé après quatrième jour xawma cinquième jour créé affaire donc sama gars tamit ngeen commencé di ki di ay point de presse pour di wax manifestation ban jour mais peuple bi doon donc récupération du fi am duñ ko may dara jaar ba lañ ko dul may révolution amul koy moo gën a dee amul ko koy jiite bu ñu leen laajee kan mooy jiite man révolution bi nee leen amul njiit révolution du am njiit bu amee ay njiit yu corrompu rek révolution day fay révolution bii nii amul njiit kan la Macky Sall di jàpp amul kan la mën a jàpp amul amul kenn ku mu fi mën a jàpp waaw ne dem kan lay jàpp daf may ñëw jàpp fii nii na ñëw day dem jàpp Tunkara da ñëw na dem day dem jàpp ñeneen ñuy def live di wax ak ñeneen ñuy wax gi pour gars yi génn na dem jàpp ñooñu yëpp jàpp na ñëpp ñu mu mënoon jàpp Sénégal yaakaar ni affaire bi di jóg mais jaspora bi moo yëkkati xeex diaspora sénégalaise boo xam ne mënoon na wax sans filtre moom moo révolution moom moo yëkkati xeex bi parce que ñun fii mun nañu wax sans filtre ñun fii duñ ñu fi jëli bu ñu leen nee taal leen kër ministre de l' intérieur daf ñu daf ma fi ñëw jël si ñun ñi ko doon wax ci internet daf leen daf ñu dafa mënoon ñëw fii nii jël si bii nii moo doon guider révolution bii ñëpp ñu ko mun ñu mënoon wax comme ñun jàpp nañu leen Sénégal ñëpp ñu doon jéem di wax comme ñun jàpp nañu leen Sénégal ñun kese ñun ñoo continuer di waxaat comme ni ñu doon waxee njëkk ba parce que ñu dara mënaluñu dara. boo leen nak ngeen jël affaire bi teg ko ay loxo sénégalais ñoo xamné mën na leen xoxotal mën na leen japp tëj leen prison mën na leen def li ak li ak li mais perte nañ xeex bi perte nañ xeex bi parce que day xam fan lay jaar day xam fan lay jaar lu leer la leen di expliquer donc diaspora bi bu démé ba perdre xeex bi rek mu des ci ay entité ñoo xamné Sénégal lañ nekk. ñoo xam ne mun nañ leen jàpp ñoo xam ne mun nañ leen toroxal ñoo xam ne mun nañ leen torturer au nom de Dieu révolution bi jeex na billaahi wallaahi tallaahi dëgg laa leen di wax au nom de Dieu révolution bi day jeex xam nga lu tax ma wóolu diaspora parce que diaspora kenn du leen jox ñu lekk diaspora kenn du leen jox ñu naan diaspora xaaruñu liggéey ci Macky Sall diaspora ñu xaalisu Macky Sall ñu loolu yépp ñun ñu ngi am suñu dund ñu ngi sutura suñu bopp mënuñu tiital police mënuñu jàpp gendarmerie am dikkoom mënuñu jàpp daram munuñu jàpp dara lu Macky Sall yor Sénégal di tiital nit ñi mënaluñu dara ñun mënu dara dara si lu mu yor tout rien donc <laughs> ñun ñun boo xoolee diaspora bi di joxe ay commandement ci kaw moo gën ay nit toog ñoo xam ne dañoo tiit wala di ragal waa dikk débarquer à tout moment jël si leen ku fa ibi géme ñoom ne dañuy déloger Macky Sall waa dikk ñoo jël si la kii fa ibbi gémmiñam ci ñuy toog di réunion foofu bu ñuy ibbi seen gémmiñ di dañuy déloger Macky Sall waa dikk ñëw fekk leen si place bi jël si leen déggoo leen ma de kon ñooñu xam ngeen ni ils pas libre pas libres ñu wax lépp lu ñu xalaat donc ñooñu boo leen joxee ñooñu révolution bi révolution bi day capoter day échec. révolution bàyyi leen ñu koy continuer comme premier jour yi nuñ ko commencé moo door di dina ñëw ngeen koy jëfee bu leen bootu ci ginnaaw kenn. dinañ continuer comme ni ko doon defee début chaque matin ñu génn ne leen tëj leen école yi génnee leen xale yëpp ngeen génn dem génnee xale yëpp ne ñëpp nañ génn ci mbedd yi koñ bu nekk na jóg en même temps affaire yi di saf sapp waa ukat jàppale leen ñu waa UCAD génn waa UGB jàppale leen ñu waa UGB génn mais noonu la révolution bi lu tax mu réussir tous ces jours-ci c'est parce que noonu la doon demee gars yi dañoo doon yeew di connecté ci internet yi di jot mot d'ordre di dinaan waa affaire yi lan la amul kenn ku doon génn ay ñoo ay M2D di génn di def conférence gaa yi di leen déglu kenn faalewu leen woon gars yi dañoo doon génn di xool Facebook bi gars yi lan la ñu wax tey wala fan moo takk tey buñ gisee fenn takk na rek gars yi jóg nañ waaye xool leen tey ah, waa Sédhiou jóg nañ yeneen jours yi buñ gisee ni benn région ci Sénégal wala benn village jóg na rek ñëpp dañ ciy topp jóg waaye tey Sédhiou jég génn na mais kenn topp ci parce que ñëpp ñu ngi toog di xaar samedi jot ana kañ lañ doon ñun ñun ñun dañoo doon xeexee noonu. ñun noonu lañ doon xeexee sama gars yi dama bëgg rek nee naa leen man manipuler ma man ah pour manipuler ma waxuma du am de waaye du doon lu yomb parce qu'il faut être très très intelligent pour yéen ngeen manipuler ma yéen pour ngeen manipuler ma wala pour ngeen jekkuñu ci suñu révolution donc gars yi samedi bi bu jotee samedi bi la ñu may M2D samedi bi bu passé dimanche bi ñun ñoo ko moomal suñu bopp. lundi bi ñun ñoko momal suñu bop mardi bi ñun ñoko momal suñu bop ak yeneen jour yi ci top yépp xaru ñun digelu kenn pour génn ñun ñoy dem ragal suñu etaji, est ce wax ji leer na comme niñ ko doon defee waye légui nak xex bi dañ ko bëgg changer dañu bëgg ngeen gudi tok ci sen kaw étage yi yor ay brick té ko ci sen loxoy ki ngeen gis muy tiré ci kaw nit ngeen wadal brick bi ci bop ba parce que ñom dañuy rayé

bo len genné goudi dugg ci yenn koñ ñom dañuy ragal duñ len ñame top xol len taal kër yi kër yi ñu taal yeb yenn yenn moment lañ ko def goudi lañ ko def ak kenn mënu ko won def donc goudi dafa nek moment bu propice bo xamné dañuy continuer wat ciblage yi Kaysof gennat na di len wax technique yi dañuy continuer wat ciblage ci goudi amna ay nit ñu commencé genn di am fit di wax ñu ngi enregistrer li ngeen di wax dinañ joxe liste comme nuñ ko doon defé fan yele ñu ngi enregistrer lepp li ngeen nek di wax ci digënté bi yaakaar ni révolution bi jeex na ñu ngi enregistrer yeen ñëpp da ngeen dawon plateau télé yi leen wax ku ñu wo ñu leen dama ragal ñu taal sama kër waye commencé waat ngeen wax ñu ngi enregistrer waat légui gaay da ngeen di génn guddi ñu commencé waat ciblage yi jeexul xex bi jeexul à partir de samedi bu ñu xasse ba génn samedi dimanche duñu xaar kenn voilà da ngeen di yéeg seen biir kër yi nak yor ay brique duñu xam brique bi fan la joggé jeki jeki rek wadal ko ci seen bop bam tiire pan pan pan tiire nii benn yoon pan bal takk wàccee leen ay briques ci seen bopp bi biñ ko defee benn koñ ñaari koñ au nom da Dieu kenn dootul tiire waat ci suñu koñ yor leen ay ngandi briques ak ngandi weñ prip wa ñu tiire rek ngeen wàccee ko ci seen bopp yi on va continuer la révolution la nee naa leen ku nekk Sénégal am na wat wax yoo xam ne mënu ko wax dëggoo leen ma de lu tax xeex bi diaspora bi continuer woon ko di ko mener avec brio mooy diaspora bi sans filtre lay waxee ak sénégalais ñun du ñu ne ay xam ngeen lu ñuy wax quoi maanaam yéen xam ngeen quoi ah li ngeen war a def yéen xam ngeen ko non ñun du ñu waxee noonu ñun dañ leen di ne yéen leen briques yi ngeen wàccee ko ci seen bopp yi. dañ leen di ne kii nii daf ñoo yab maître El Hadj fexe leen ngeen seet si ko dañ leen doon ne ministre de l'intérieur bii nii def ñu yab fexe leen ngeen seet si ko ñun dañ loolu kenn mënu ko def ci Sénégal kenn mun ci ñoom mënu ko def sama gars yi ay xam ngeen boo leen di naan kayis moytul ci sa bopp yéen ça veut dire que vous n'êtes pas prêt quoi ci révolution bi y a des gens qui sont morts sama gars yi ngeen di ragal ba léegi ñooñu tiituñu quoi ñooñu ils sont morts ñooñu ñun gënuñu leen quoi ngeen may naan ay kayis moytul ci sa bopp moytul lan ci sama bopp ñu dee man maa leen gën y a des gens qui sont morts des frères qui ne sont plus là ñun ñun ñoo doon inciter ñooñu ñu génn.

amul révolution boo xam ne da ngay ne noo man damay moytu booy moytu rek nekkoo ci révolution da nga nekk ci hypocrisie ñun nag nekkuñu ci hypocrisie ci dëgg lañ nekk parce que lu ñuy xeex dafa dëggu ci ñun voilà donc sama gars yi pour l'instant loolu mooy mot d'ordre yi euh, da ngeen di abonné wu ci Kayz Fof TV ci YouTube ba foofu dinañ fa ibbi ligne bi ci kanam ngeen woote ñu waxtaan ibbi waat ay stratégie nu ñuy continuer waatee suñu révolution bi chaîne YouTube bas après ci kanam tuuti dangeen di tape ci YouTube KS Fof TV ngeen abonné wu foofu foofu dinañ yaatal ibbi ñëpp dugg ñu ibbi waat stratégie collecté waat xaalis ah collecté xaalis gu bëri pour suñu suñu ay nit ñi nga xamante ni tamit xaalis moo leen di encouragé puisque Macky Sall day fay ay nit pour ñu rey ñu ñun tamit dinañ fay ay nit pour ñu résister moom day fay président de la république buy fay ay nit pour ñu rey askanam donc peuple bi tamit am na droit fay ay nit pour protéger wu. donc xaalis googu noonu yëpp yu ñuy récolté yëpp dinañ ko wax ci kanam ci chaîne YouTube ba jërëjëf. voilà bu ñu xeexul ñun ñëpp la ñuy jàpp ngeen may naan kayis moytul ci sa bopp yéen ñi génn benn jour sax ngeen dégg may wax ni ngeen yaakaar ni Macky Sall fàtte na leen au nom de Dieu bu ñu tous les pouvoirs ci loxo Macky Sall ci yéen ñëpp lay ñëw ne yéen a ngi tiit ci sama yéen a ngi tiit ci man ni may waxee bu leen tiit ci seen bopp rek ñun ñëpp lay jàpp ñun ñëpp lay jàpp donc balaa mu may jàpp nag man dinaa joxe lépp lu ma am bu ma jàppee nag ma xam ne jàpp na ma bu boobaa bay ben, du ma fi toog di moytu alors que euh, mu ñëw jàpp ma comme un lâche on va donner le tout pour le tout voilà jàmm la ñuy woote waxu hypocrisie la hypocrite rek ñoom ñoo nekk di wax jàmm parce que jàmm amul ci Sénégal heure yi may wax ak yéen nii ñu ngi torturer suñu ay camarades ci prison yi ñu ngi leen di torturer ay nit ñu nekkoon ci manifestation yi jàpp nañ leen démb di leen torturer heure bi may wax ak yéen nii jàmm amul Sénégal ay hypocrite ñooy wax jàmm lañ bëgg ñom ñep ay hypocrite la ñom ñoo nekk di sàcc sen ay milliards di lek ñom ñoy nek nekk ci commentaire yi di leen naan yow da nga bëgg a taal Sénégal ñom ñoo nekk di dundé sen milliards yi dañoo bëgg ngeen continuer nekk ay mala yo xamné dañ leen di utiliser pour ñom ñuy gagner ay milliards sen kaw ñun kenn ñu utiliser jëf sama gaay yi jëf bu ñu xeexul konak. leen ko nak dañuy tok comme ay xaar ñu ñoo japp ñu suñu kër yi bala ñu ñuy japp suñu kër yi nak nañ genn dem ji man loolu laa gëm jërëjëf jërëjëf